waaye askan bi dafa laaj mu war a xam mu xam loo xam ni moo am te mu leer ci ay bëtam surtout ci wàllum liggéey bi nga xam ni président moo ñu ko sant mooy ci wàllum ndimbal bi nga xam ni état bi daf koy jox askanu Sénégal ci fànn boo xam ni nu ñu jëndee jëndee ceeb bi la ak yeneen denrées yëpp mais aussi nan lañ koy yóbboo ci dëkk yi. waaye bala may continuer dama bëgg sant président de la république mi nga xam ni ca njëlbéen dafa jóg jël matuwaayam lépp pour xeex lii nga xam ni moom mooy jafe-jafe yu feebar bi ñu tuddee pandémie boo xam ni Covid 19 moo ko indi askan bi muy lëmbale askan bi. di aussi leeral que ni liggéey rek li ñu xam topp ci ginnaaw président de la république te lépp lu ñu sant ñu def ko ak nu mu gënee rafet. di wax ni aussi lii ñu ñu sant comme liggéey bu ñu demee ba jëmmi jamono lépp luy ci rapport ak ci maanaam euh, bilan daañ ko def teg ko ci yoon buñ ko waree teg ñëpp jot ci ñëpp xam ci. Euh, feebar bi nag dafa nekk maanaam feebar boo xam ni àdduna bi yëpp la wër te gis ngeen dëkk yëpp dañoo jël matuwaay yu nga xam ni. pour euh, changer nu ñuy sax jëndee wala ñu defee appel d'offre parce que temps bi mayatu ko kenn kenn mënul toog di xaar ngay def yenn procédures yi loolu nag tax na ba nga xam ni ah état bi jël na matuwaay jëf benn décret boo xam ni lépp lu toll na ci dépense wala ci wàllum dépense te jublu ci affaire Covid 19 bi mu génn ki ci marché public loolu dafa am présent nag. dégg ngeen ni dafa def benn programme boo xam ni mu ngi tuddee que le programme économique programme de résilience économique et sociale ah dugal ci koppar yu bëri toll na ci mille milliards mille milliards yi wax ngeen xam ñëpp xam nañ ni fu muy dugg parce que pàcc bi nekk am na yoon bu mu war a tegu ci 1000 milliards yooyu nag am na côté boo xam ni dafa jublu ci wàllum jënd ndimbal loolu ci ay koppar mu ngi toll ci 69 milliards de francs CFA ñu dénk que développement communautaire de l'équité sociale et territoriale territoriale mooy ministère ba nga xam président moom moo ko dénk. ndimbal boobu nag dafa war a jënd ay dund lu toll na ci 100 kilogrammes ceeb par ménage ménage mooy njël borom njël moom la ñu tuddee ménage ménage bu nekk mooy borom njël bu nekk dana am 1000 kilo 100 euh, kilogrammes de riz fukki litre dëwlin paquet de savon yoo xam ne def juróom fukk ak juróom-ñett saabu yu 300 grammes fukki kilo suukar ak ay pâtes alimentaire maanaam macaroni ak ay ñoom vermicelle te loolu yëpp dafa un million de ménage war wala un million de borom jël ñoom ñoom ñoo ko moom suñ ko xaymaa nag borom jël d'habitude dañoo xëy nañ euh, maanaam juróom-ñett ba fukk doomu aadama ci kër ga donc loolu dana dal entre huit million ak dix million de sénégalais donc comme nu ma ko waxee président jël na décret boo xam ni maanaam lu ñu war a def ci marché public. ñun mën na ko def commande rek mën naa xool ku ma neex wala koo xam ni am na maanaam capacité ñu ni ko dañuy jënd ci yow lii nga xam ni moom lañu jënd loolu yoon may nañu ko te suñu buggoon mënoon nañ ko def waaye bugg loolu taxu ñoo jóg dañ ni dañu toll ci jamono boo xam ni looy def il faut que nga leeral ko parce que comme dafa nekk dund yoo xam ni day dem ci askan bi te bu ëllëgee da ngay rendre compte dañ ni kat il faut que ñu def lu ñuy wax les bonnes pratique nan la ñuy mën a gën a leeral askan bi pour que li ñu def bu ëllëgee bu mu am coow loolu moo tax ñun bala ñu tàmbali dañu bind lettre ARMP ni ko kat dañu bëgg nga dimbali ñu ci yoon bi nga xam ni moom lañu jëm ci wàllum jënd bi ak yóbbu bi ci denrées yi nga xam ni moom lañ président sant mu leeral ñu wax ñu ay yoon yu baax bu boobu ba ko defee ba pare ñu euh, maanaam def lu ñuy wax. Euh, euh, avis commande ouverte en procédure d'urgence c'est-à-dire dañu doon dañ ko def pour homme maanaam jox chance képp koo xam ni da ngay am da ngay liggéey ci wàllum dund mën a joxe denrée am capacité financière ak am stock donc ñu def ko ci ay soleil publication soleil ak observateur ak libération bu le premier le deux et le trois avril bi passé ñu ne leen nag ku bëgg soumissionné wala ku ci bëgg bokk il faut que nga mën a am ceeb boo ceeb ci saaku cinquante kilogrammes waaye ci minimum lu mu gën néew néew il faut nga am cinq cinq mille tonnes suukar paquet la de cinq kilos wala nga def ko saagu dix kilogrammes bu ci neex waaye lu mu néew néew néew il faut am capacité am cinq cent tonnes garder cinq cent tonnes nga garder waxuñu ne nga dem di ko jëndi bitim réew nga ko jëndi feneen da koy garde ñu ni dawlin bi conditionnement bi soit juróomi litre la wala fukki litre la waaye il faut nga am 10 000 litres yoo xam ni danga nga koy garder pâte alimentaire ñu ni kat dañ koy def ci saagu 5 kilos wala 10 kilogrammes waaye il faut nga am en stock 10 000 tonnes non 1000 tonnes autant pour moi ñu ni saabu gi comme ay paquet la yoo xam ni day def saabu juróom fukki saabu ak juróom-ñett yu 300 grammes il faut nga amee paquet bi nga am ci garder ci au moins 10 000 wala nga wane ni garder nga 10 000 donc képp koo xam ni. buggoon nga bokk bokk ci maanaam ci appel à candidature candidature ba mu defoon ñu ne au plus tard le vendredi trois avril nga ñëw déposer ko au niveau donc ci ministère bi donc boo ñëw aussi da ngay indaale sa facture proforma parce que conditions yi dañ leen dañ ko yombala lool indil facture proforma bi nga xam ni pro prix yu nga proposé mi ngi ci facture bi nga def déclaration sur l'honneur wane ni man kat lii la ma laaj lii ñu ma laaj ci stock gardé naa ko lu mu néew néew gardé naa ko am naa sax lu ëpp waaye gardé naa lu ma laaj ci lu néew te loolu dafa nekk lu am solo parce que danaa ci wax tuuti keroog bañ demee ba tànn ñenn ñi dañ leen woo ñu leen kat il faut ñu xam seen stock fu mu nekk parce que gendarmerie ak armée bi daañu ñëw vérifier waaye bañ ko waxee ñu bëri dellu nañ naw donc loolu dafa nekk lu am solo ñetteel euh, lu ñu leen loxo laajoon aussi dañ leen ngir indi échantillon pour wane ni échantillon bii laay joxe donc le 3 avril 2020. ministère jot na ci wàllum juróom benn fukk ak ñaar ñu nga xam ni wax nañ ni bugg nañu ci bugg nañu jaay produit yi ñenn ñi ci juróom yëpp ñenn ñi def nañu benn ñii ñaar ñii ñett ñii ñeent bañ demee ba xool loolu yëpp ñu tànn ñu nga xam ni ñu wóor enfin yaakaar nañ ni am nañ stock bi parce que def nañ déclaration te mën nañ ko vérifier waaye aussi ak le prix bu gën a yomb ku gën ñu gën a yombalee parce que dañu bëgg dañu bëgg économiser état bi koppar su ñu jëlee wàllum ceeb bi ñeent ñu ci gën yombale ñu jël leen te ba ñu seen prix yu ñu proposé maanaam boo jëlee kilo bu nekk deux cent soixante quinze franc la maanaam par kilo du sax tonne bi deux cent soixante quinze mille waaye kilo bi deux cent soixante quinze franc la donc ñeent lañu te bu ñu seetee moyenne des prix sax yu ñu proposé mat na ci trois cent franc le kilo donc économiser nañu vingt cinq franc par kilogramme. vingt cinq francs par kilogramme boo ko xaymaa sur cent mille tonnes dafa war a nekk deux milliards cinq cent millions de francs CFA yoo xam ne nañ ko état bi. ñeent ñooñu nga xam ñoo gën yomb la nag kenn kii mu ngi tudd group Bambouk nekk Koungheul quartier Fass Cekkeen pour un milliard trois cent soixante quinze millions ku ci topp maanaam beneen groupe bi mu ngi tudd Avanti Sueur la nekk cent cinquante cent cinquante deux avenue Lamine Gueye pour neuf millions six cent vingt cinq millions de francs CFA. ñetteel bi Afrique Enco nekk 150 avenue Lamine Gueye pour 8 milliards 250 millions ñeenteel bi nekk comptoir commercial Mandiaye Ndiaye nekk 7 rue Sergent Malamine euh, par Escarfé pour 8 milliards 250 millions de francs CFA ñu ne nag yéen ñu tànn bis buñ leen joxee maanaam seen i bon de commande may leen ñaari fan pour ngeen commencer livrer. su ngeen livrewul ci ñaari fan yi dañ mën nañoo nanguwaat marché bi donc ci loolu société bi nga xam ne moo ci ëpp lu ko jox ci quota ñu jox ko bon de commande am te mu commencé livrer depuis le samedi bii passé maanaam le samedi 11 avril ceeb bu ngeen gis yëpp wala saaku ceeb bi ngeen gis yëpp ñuy dugg ci dëkk yi di dem dans les régions euh, maanaam fournisseur boobu moom moo ko livré yeneen ba daara yi des moo xam ni euh, euh, suukar sa leeg dëwlin beeg pat yi ak euh, saabu bi même chose la def te fu may wax ak yéen nii pare nañu ba boucler maanaam procédure yëpp ci wàllum transport même avis de commande la ñu def waaye tout simplement dañuy woon képp ku bëggu maanaam dugg ci wàllum transport na nga wane ni am nga au minimum parc boo xam ni juróom fukk camion moo ci nekk waaye terewuñu kenn mu def ay regroupement mu nga boole ñaar ñett ñeent juróom parce que bëgguñu ku soxla toll na ci ay 600 camions nga ni kat dinaa waxoon teg 600 interlocuteurs donc loo tax ñu ni parc de 50 camions te teerewuñ kenn maanaam mu regroupé wu. donc ba ñu le ñoom ñëpp ba ñu ñëwee ñu ci ñu mu intéressé woon ñëw def seen offre parce que damay yàgg wax ni du du appel pratiquement du appel d'offre mais dañuy ñëw indi seen ay prix ba ñu indee seen ay prix ku ci nekk ñu xool analyser prix yi ba gis ni prix yi la am. ñun ñu fixé suñu ay prix te prix yi ñuy fixé képp kuy transporteur xam nga ni prix yooyu moo gën a yomb dans le marché parce que prix yi moo gën a néew prix yu ñuy pratiqué. boo jëlee Thiès Louga Diourbel Fatick Kaolack Kaffrine ñu ni 7500 la waaye ci bi fii mën naa wax ni Thiès xëy na cees xen xaw na rëy tuuti pour éviter transporteurs yi nga xam ne ñoom ñu am contrat di dem ñu ñuy jël seen camion jox nañ jox ñu ko ñooñu la ñu yóbbu cees donc loolu pour leeral ba jëlee Saint-Louis Tambacounda 15 000 francs CFA la la tonne Matam Kolda Sédhiou euh, Kédougou Ziguinchor 18 000 francs CFA la tonne donc transporteurs yëpp nga xam ni ñu nangu ñu euh, maanaam prix yooyu la ñoom ñëpp fu mu nekk nii ñu ci bëri ci ñoom tàmbali nañu yóbbu maanaam ceeb yi ci biir Sénégal donc. dama bëggoon aussi informer amoon na lu ñuy wax les acteurs des transport routiers du Sénégal ñooñu effectivement le 28 euh, mars defoon nañu communiqué ni dañoo bëgg jàppale nguur gi ci wàllum transport. ñu réunion ñoom je pense le 10 tey jii fu mu nekk nii ñoom tàmbali nañu maanaam chargé maanaam seen ay camions le 14 avril bi passé ñoom chargé nañu lu toll fukki camion ak ñeent. yóbbu cees démb chargé nañu lu mat euh, maanaam ñeent ñeenti fukk camion ak ñaar di dem Thiès di wax nag ni ci lu ñu soxla ci ay camion wax naa ko léegi toll na ci 600 camions mooy juróom benn téeméeri camion tey fi may waxe yéen ñaar téeméer ak maanaam juróom fukk ak ñetti camion donc ñooy dawagum donc maanaam ku mën Euh, mën na indi camion daañu jël euh, daañ leen jël bu neexee yàlla. pour terminer dama bëgg rek wax ni gis nañu camion yi di yóbbu dund yi ci dëkk yi ma defal leen tableau bi Kédougou fi ñu toll yóbbu nañu fa 1585 tonnes Ziguinchor 1038 tonnes Matam 1335 tonnes euh, tonnes autant pour moi Diourbel 418 tonnes Dakar 396 euh, tonnes Louga 1130 tonnes Thiès 1747 tonnes virgule 5 Tambacounda 730 tonnes Saint-Louis 280 tonnes donc suñ ko xaymaa loolu yëpp mi ngi toll ci 8659 virgule 5 tonnes lu ñu yóbboogum néew na mais yaakaar nañu fileeg daal ay fan il faut que ñu yokk maanaam mbir mi parce que damaa bëgg fii léegi une semaine tout au plus ñu yóbbu ceeb yëpp fépp koo xam ni war na fa dem donc lii laa amoon doon wax euh, comme communication léegi di jublu ci euh, journalistes yi pour question yi xam ni moom la ñu bëgg poser moo mën ci indi leeral bu ma bëgg jërë ngeen def. à peu près une cinquantaine de questions de nos confrères, mais <laughs> ne vous en faites pas, nous les avons en quatre séries de questions posées par nos confrères. Et la première série est relative au ciblage et base de données des ménages. La première question, c'est Pape Amadouci, journaliste à Azaktunet. Quels sont les critères qui ont guidé le choix des ménages et qui doivent recevoir l'aide alimentaire d'urgence Firdaus Diallo, journaliste à Walf TV. L'identification des ménages, vous avez utilisé les données des bourses familiales ou celles de l'ANSD. Fatou Ndiaye, journaliste à Sud Quotidien, pourquoi avoir privilégié le registre national unique aux données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, ANSD, pour la répartition de l'aide aux ménages vulnérables Et enfin, Cher Diagne, journaliste à Chronique SN, comment comptez-vous régler le problème des doublons sur le registre national unique Bon, comme je n'ai pas noté les questions. <laughs> la première question est relative donc, au, au ciblage. Oui, la première question, c'est quels sont les critères qui voilà. ont guidé le choix des ménages qui doivent recevoir l'aide alimentaire d'urgence Voilà, donc permettez-moi, euh, pour la réponse ou les réponses apportées aux questions, de pouvoir donc euh, les faire en Wolof pour une compréhension en tout cas général Voilà, donc question bu ci jëkk mooy ñu nan la ñu tànnee les ménages les critères de ciblage xam ngeen fu mu nekk nii euh, feebar bi nga xam ni mooy coronavirus dafa indi maanaam économie bi am ralentissement mooy mu wàññeeku. activité yëpp wàññeeku donc bu activité wàññeekoo mën nañu jàpp ñi ñu gën a néew doole maanaam mbir mi daf leen di gën a dal wala ñëpp ñu nga xam ni dañoo liggéey te seen liggéey gàllankoor mu indi leen jafe-jafe boo xam ni sol loxo jotatul ci ginnaaw donc ñooñu dañuy nekk ay euh, personnes yi nga xam ni wala ay ménages yi nga xam ni maanaam euh, aide bi war naa mën a jublu ci ñoom donc critères yi dañ ni. képp koo xam ni da nga doon amootoo salaire fixe wala sa revenu maanaam dañ na wala ñu ni maanaam feebar bi gàllankoor yu mu la indil tax na ba nga xam ni nekk nga ci situation jafe-jafe donc yooyu indication yi la ñu joxe mais indication yi nekkul loo xam ni dañ ko fermer dañuy dañuy joxe rek ay yoon ay tegtal bàyyi les comités au niveau de base au niveau des quartiers au niveau des villages ñu toog waxtaan seen biir par rapport ak quota bu ñu leen jox ñu ni kii yelloon na ko wala kii yelloo ko donc la latitude dañ ko bàyyil maanaam les comités lu ñuy wax les sous comités de ciblage ñi nga xam ni ñu ngi ci quartier yi wala ñi nga xam ni ñu ngi ci village yi donc loolu moom mooy indi maanaam euh, maanaam ciblage bi ñu defee ko noonu donc la deuxième question c'est j'ai pas noté. vous avez utilisé les données des bourses familiales ou celles de l'ANSD. non xam nga les bourses familiale mën nañu wax ne les bourses familiales nu ñu tànnee les bénéficiaires de bourses familiales nu ñu ko tànnee dañuy jël maanaam base à partir donc des données de l'ANSD moom la l'agence nationale de la statistique et de la démographie ca njëlbeen dañ ni dañuy jox les bourses familiales ñu nga xam ne dañ nekk dans une situation d'extrême pauvreté pour ñu mën leen xam. dañu ne ANSD ma kaay nga jàppale ñu ci liggéey bi il faut comme xam nga la carte de la pauvreté xam aussi la carte démographique ñun bugg nañu jox les bourses cinquante mille ménages nan lañ leen di tànnee parce que comme dañuy c'est les cinquante mille ménages les plus défavorisés ou les plus qui sont dans l'extrême pauvreté nañ seet nu leen tànnee donc ñoom région bu nekk xam nañ ni maanaam ñu taux de pauvreté lu fa nekk xam nañu aussi taux de démographie lu fa nekk. donc ñu def seen ay combinaison ñu génne maanaam le nombre la euh, et euh, chaque région boo seetoo jox nañ ko wàllam maanaam ci euh, lu mu war a am ci bourse familiale donc ba ñu def bourse familiale yi pour nga tànn cinquante mille personnes dañuy tànn tànn lu toll na mille par exemple cent mille yooyu ñu tànn ci ni ñuy jëlee cinquante mille yi lu ci des ñu bàyyi ko ci ñu tuddee ko RNU donc ñu nekk ci biir famille bourse familiale yi ñu ngi ci biir RNU bi donc on partie de la base de calcul bu ANSD la même chose la ñu def maanaam ci wàllum ciblage yi nga xam ni moom la ñu def ci euh, euh, euh, ñu war am ndimbal bi état bi di joxe dañ ni un million de ménages lañ koy jox su le million de ménages ñu ni mm, dañuy jël képp koo xam ni yaa ngi ci RNU bi. mooy les 588 ménages 045 comme xam nañ leen te dañoo jàpp ne ñooñu dañoo nekk dans une situation boo xam ni maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw donc ñoom ne ni ci lañ bokk dans un premier temps lu des ñu tuddee que le delta loolu muy 400 maanaam 11 955 ñu ne dañuy defar la même répartition avec les services l'ANSD ñu jox ñu quota bu ci nekk commune bu ci nekk ban lay lan lay am ci quota tànneef boobu nag comme nu ma ko waxee léegi maanaam c'est les sous comité au niveau des quartiers et des villages ñoom ñooy tànn selon quota bu leen jox. L'autre question, c'est comment comptez-vous régler le problème des doublons sur le registre national unique waaw xam nga registre national unique ñun ñëpp d'accord nañuy dafay am ay erreurs ñu tuddee leen ay erreurs soit d'inclusion wala des erreurs d'exclusion généralement donc dañuy am na taux boo xam ne koy accepté ci Sénégal xam nañu erreur bi à peu près 10 pour cent moo tax ñu jël les registres uniques actuellement nii jox nañ ko maanaam euh, les euh, euh, autorités territoriales ñu leen wàcce leen ko ci au niveau de la base et stabiliser leen ko parce que aussi il faut moom benn exercice boo xam ni de stabilisation maanaam du registre unique ñoom buñ nee maanaam quartier boo xam ni je ne sais pas ma ñaa cokkeer ñu jox leen liste bi ñu ni kat ñi nekk ci RNU bi ñoom comme daañu xamante seen biir daañu mën wax kii mi ngi fi wala kii dem na wala kii wala macha allah nekkatu fi donc ñoom bu ñu stabiliser daañu ko remonter bu ñu ko remonter on a l' information donc list bu ñu stabiliser bi boobu ñooñu la ñuy attribuer effectivement les aides donc des doublons du ci ñàkk ça ce qu'on appelle les erreurs d' inclusion et d' exclusion donc c' acceptable duñ ko corriger donc ñun ñu à jour le fichier du national unique. alors euh, un confrère euh, au téléphone. oui allô. attendez attendez attendez oui moom. voilà c'est bon c'est bon. Oui, je vous écoute. Allô, bonjour, monsieur le ministre. Oui, bonjour. Bonjour, je suis Gaston Massali, journaliste au quotidien Libération. D'accord, bonjour. Oui, allô, monsieur le ministre. Oui, je vous entends, je vous entends. Oui, Gaston Massali, journaliste au quotidien Libération. Mhm. Ah, monsieur le ministre, j'ai bien suivi votre intervention en direct. Vous avez bien dit, effectivement, ce n'est pas euh, une séance d'explication, mais surtout une une séance euh, euh, d'éclairage. Tout à fait. Alors, monsieur le ministre, le sur euh, l'entrepreneur Ryan Hachem a fait beaucoup de bruit. Aujourd'hui, vous avez donné les critères pour lesquels pour, lesquels les, les, entrepreneurs ont été choisis. Mhm. D'accord. Mais aujourd'hui, il n'est pas trop connu du milieu du riz. Il empoche 18 milliards.

Alors, je, nous, on a euh, attribué ces quotas à des personnes morales et non à des personnes physiques. Et ces personnes ont présenté les conditionnalités, ont répondu positivement aux conditionnalités posées. Disponibilité des stocks et offrant le prix, le meilleur prix. Les, ce sont les seules conditions qui nous intéressaient et c'est la raison pour laquelle donc, euh, ces marchés ont été attribués. Voilà. Monsieur le ministre, nous allons passer à la deuxième série euh, de questions qui concerne l'attribution des marchés. Elhaj Gourendir, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner les raisons qui ont motivé votre choix sur l'octroi du marché ou une partie du marché à un Libanais? <laughs> C'est pas le ministre qui a euh, nos services donc ont émis un avis donc à commande ouverte. Des sociétés ont participé et les meilleurs ont gagné en termes de disponibilité de quotas et aussi en termes de prix. C'est tout simplement ça. Voilà. Concernant toujours euh, l'attribution des marchés, RFM, pourquoi le choix des commerçants sénégalais pourquoi pas le choix de commerçants sénégalais connus dans la vente du riz Et comment se fait-il que l'une des entreprises ne se trouve pas dans le fichier de l'APIX ah ça je ne sais pas pourquoi l'entreprise ne se trouve pas dans le fichier de l'APEX c'est pas vraiment c'est pas de ma compétence comme je l'ai dit euh, ces ces entreprises ont répondu à un avis bien défini ceux qui ont répondu et ont présenté les meilleures offres et la disponibilité du quota ont été choisis c'est aussi simple que ça alors, la troisième question, c'est que vient faire Diopsi dans cette affaire? Est-il attributaire ou bénévole? L'appel d'offres est lancé avant ou après la proposition de mise à disposition gratuitement de camions par des transporteurs pour l'acheminement des denrées. <laughs> Moi, je ne connais pas Diopsi. C'est l'entreprise IDE que je connais, qui a été soumissionnaire et qui a bénéficié effectivement d'un quota de transport en région. Et je rappelle euh, que concernant le transport nous, on contractualise par région et par quantité. Donc, euh, si euh, le fournisseur, effectivement, satisfait à ces conditions, nous continuerons à travailler avec lui. Alors, donc, euh, voilà, sur cette question, <laughs> moi, ce que... Hein? de, euh, <laughs> Donc, dama ni man xaw ma euh, xam nga maanaam booy def liggéey nit ku nekk ci ginnaaw sa yoon newul ci moom entreprise nga amal affaire entreprise entreprise yi maanaam lancé nañu appel d'offre entreprise yi ñëw nañu joxe seen offre wane ni ñoo gën a yombale te am nañu stock moo tax ñu jël leen ci wàllum transport bi aussi noonu la ñun ñoom en fait ñun wax naa ko léegi prix bu ñu joxe bi maanaam dafa nekk prix boo xam ni prix bu yomb la prix bi moo gën a néew nu ñu koy pratiquer ci marché bi donc ci loolu maanaam am nay entreprise yu bëri ñoo xam ni ñoo nañu participer ci entreprise yooyu UDE ñëw na participer et comme dañ leen fixé prix boo xam ñun ñoo leen fixé prix yi ñu nangu ko ba tàmbali jotee te mënuñoo xaar ñu commencé tàmbali ak ñoom mais lu may fàttali mooy amul benn entreprise bu gagné maanaam lu ñuy wax tout le marché du transport amul. bu ñu jëlee entreprise dañuy wax par exemple dañu la jox région région par exemple première euh, le premier euh, euh, samedi bu njëkk bi dañuy wax région de Ziguinchor région de Matam région de Kédougou région de Louga ak région de de de Diourbel jox ko benn entreprise mu dem yóbbu bu dee soité ñu xoolaat beneen région bu ñu koy jox donc amul kenn ko xam ne nañ wax yow yaay gagné lii wóolale les transporteurs indi nañu ñoom rencontré nañu sama dage maanaam le 2 avril le 2 avril ñoom le premier avril la ñu bind lettre adressé ko seen ministre de tutelle maître Oumar est vrai defoon nañu maanaam lu ñuy wax benn communiqué le 28 avril mais ba ñu ñëwee waxtaan ak suñu daaj sama daaj bi le 2 avril ñoom dañoo waxoon daañu dellu waat waxtaan seen biir indi liste ay camion le 10 avril ñu yónnee benn list boo xam ni à peu près une quarantaine de camions la donc yàlla def na ñoom fu mu nekk nii le 14 avril bii tam comment passé tàmbali nañu liggéey indi nañu 15 camions yoo xam ni chargé nañ ko démb chargé nañ lu mat ci ñeent fukk camion ak ñaar te dama leen di yëgal ni ñun lii nga xam ni mooy ceeb bi ci cent mille tonnes ñu bugg ko yóbbu ci ay fan yu néew bu ñu ko bëggee yóbbu ci fukki fan il nous faut mu toll na ci juróom benn téeméer camion juróom benn téeméer camion tey jii fi may waxee yéen ñaar téeméeri camion la ak juróom fukk ak ñett donc képp koo xam ni maanaam am nga camion yàlla yonent bi ngir yàlla mais indi sa camion c'est aussi bu fekkee transporteur am nañu 1000 camions mais nañu indi 1000 camions bu ñu amee 1 million de camions nañu indi 1 million de mais c'est pas compliqué donc vraiment amul xuloo amul xeex te transporteur yi bu ñu ma indilee 600 camions képp koo xam ni dañu doon contractualiser amul dañ lay bàyyi mais jeex na. donc man gisuma lu ci jar a wax lu ci jar a ceew ku bëgg indil indil comme dangay ngay maye état bi ñun essence dañuy jënd moo ñu gënal man ci seet 600 camions ku mu indi 600 ma jël ko amul benn problème. Voilà, merci Monsieur le ministre. Nous allons retrouver notre confrère de RFM, Babacar Fall. salaamaaleykum monsieur le ministre. maaleykum salaam suñu Fall. waaw da nga waxoon ni da leeral mais sa leeral yi dese naa leer. Euh, ndax euh, boo jëlee société bi di Avanti ak Afri nga xam ni euh, Afri Enco nga xam ni benn nit moo ko moom mi nga xam ni daanaka ceeb bi lim leen ci jaay ñu ne jege na dix huit milliards ci ni ngeen ko bindee nga ni itam gendarme ak armée dem nañ constaté stock yi ku ku stocké dix huit milliards ci CFA ci mbirum ceeb fan la ko stocké est-ce que mën nañ xam bërëb ba ndax yow dem nga ca ba seetlu ni demal ci plateforme bi da ngay demal ci plateforme fële euh, fu ñu jëlee ceeb bi ceeb bu ku fay joxe avanti moo joxe ceeb bi fu nekk nii fu nekk ceeb bu dugg Sénégal les mille tonnes et poussière fo la jóge donc ñun waxuñu waxu caaxaan waxu dëgg la ñuy wax donc loolu moo am boo bëggee lu leer da nga fay dem ngir yàlla yonte bi nga seet lu ñuy wax amul dara luñ ciy nëbb amul dara luñ ci làq. léegi léegi ma ma ma daaneel rek. Euh, bisimilah ci question bu ci bëggoon toftal ñu ni moom mi ko gagné dix huit milliards yi sa xarit la loolu dëgg laa lu dëgg. ak itam li may daanelee mooy ko waxatee ma boo ko waxatee ma boo ko waxatee ma porte plainte. ah pourquoi. parce que da ngay da ngay jaxase. ci loo xam ne tegoo ko fenn. non moom mënuma ah, cee porte plainte ab laaj laa la laaj. déedéet <laughs> ab laaj la. waaw dëgg waaw waaw kon du sama léegi boobu ma ah. ko jeex na. mooy. Euh, Euh, ak li nga bokk ak Macky Sall yaakaaroon ni coow li toppoon Karim Wade te annoncé ak si njëli ci sesman waaju lay toppam jërëjëf monsieur le ministre. <laughs> jërëjëf si sa question bi. Voilà, monsieur le ministre, nous allons passer à la troisième série de questions relatives au budget et à son utilisation. Euh, quel est finalement le coût réel du transport, de la manutention et du chargement? 6 milliards 3 milliards 5 ou 1 milliard. <laughs> alors 6 milliards yi man xam fu mu jógee wax dëgg yàlla man dama toog ba si ak dégg 6 milliards jéem naa def mode de calcul bi nekk xamu fu 6 milliards jógee mën naa wax ni le coût du transport euh, mënuma sax joxe réellement coût bi fu mu toll. parce que dafa am ñoo xam ni dañu am seen camion ñu ñu ko jox ñuy jënd carburant di ci def ñu yóbbu dans les régions donc fu mu nii dax naa démb. maanaam y' a 47 camions yoo xam ne ou 42 mettre nañ ko am notre disposition ak acteurs yi am na d'autres bonne volonté yoo xam ne jël nañ seen ay camions jox ñu ko mais bu fekkee ñu compte maanaam ci loolu yëpp ñu def une petite simulation ni en moyen maanaam euh, euh, euh, à peu près camion bu nekk 40 tonnes la bu ñu defee simulation boole ci toutes les régions du ñu dépasser 1 milliard 800 compte tenu de la manutention. parce que jàpp leen ni manutention bi au chargement du ñun ñoo koy fay mais par contre déchargement au niveau du commissariat moo koy fay te am na beneen phase boo xam ni am na parce que le transport les livraisons dañ ko def ñaari phase première phase mooy jëlee ko ci fournisseurs yi yóbbu ko au niveau de magasins du commissariat à la sécurité alimentaire ak dans les au niveau des casernes bu ñu amee suñu soog yóbbu mat ba pare ci lañ koy yóbbu au niveau des points de distribution te loolu aussi beneen coût mais man gëm naa bu ñu boolee coût yooyu yëpp. bu nekk loo xam ni dana jege dana sori les 2 milliards ça c'est loolu lañ ci yaakaar boole ci les manutentions donc 6 milliards yi moom xaw ma ku doon gént <laughs> waxu 6 milliards mais vraiment sa n'a rien à voir et xaajul egg foofu je ne pense pas mu dépasser en tout cas bu ñu boolee les deux phases de transport plus de 10 2 milliards ça c'est clair Monsieur le ministre, nous allons retrouver Aliou Diara, DTV, qui a une question à vous poser. D'accord. Euh, bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Aliou Diarra, rédacteur en chef de la DTV. Monsieur le ministre, pourquoi pour l'aide alimentaire à l'image des bourses familiales ne pas avoir tout simplement envoyé directement l'argent aux, aux bénéficiaires maanaam ndimbal lii yi ngeen jégal néew doole yi ko yelool lu tax monsieur le ministre defu leen comme bourse familiale yi rek maanaam yónnee xaalis bi eh, eh, directement gënul woon simple ëppul woon sutura est que mun la woon éviter tamit coow bi la topp nii. non même boo ko yónnoon xaalis aussi coow du ci coow day am bon mais option la. option la jàpp leen ni option la euh, parce que jàpp nañ ni xam ngeen am nañ am nañu expérience ci transfert monetaire ak lu ñuy wax les bourses familiales yi nga xam ni ñetti weer bu nekk ñu ko moom dañu am lu toll ci eh, maanaam juróomi junne donc lii dañ ni. Euh, dafa nekk euh, mbir bu ñu bett bu ñu bu ñu bett bu dal monde bi dal Sénégal donc ñu yaakaar ni boo joxee euh, maanaam euh, borom njël bi boo ko joxee dund suukar ceeb dëwlin ci loo xam ne dana ko war a mën a téye weer moo gën a wóor ko jox ko koppar yoo xam ne da koy téye parce que koppar expérience dafa wane ni boo ko téyee xëy na di nga ci dem def ay dépenses de prestige doo ko dugal foo ko war a dugal donc loolu moo tax option bi nga xam ni. mooy jël dund gi maanaam jagleel ko ñooñu mooy option bu ñu jël et yaakaar nañu option boobu boo seetee daal ci dans le monde bëri na ñuy def option yi donc appui alimentaire donc vraiment euh, noonu lañ ko jëlee du leneen. question, il s'agit de Seydou Nourou Niass, journaliste à Safina FM. Il demande à combien sont évaluées ces denrées et les frais liés à la distribution et combien reste-t-il de l'enveloppe dégagée? bon loolu yaakaar naa ni na na xaar ba ñu pare ñu def bilan bu ñu defee bilan bi daañu wax exactement dund gi lii la jar transport yi nii la jar tous les frais lie au ciblage lii la jar ak tous les frais d'approche nii la jar bu soobee suñu borom bis bu ñu paree mbir mi daañu def bilan bu leer nañ fu toll nii leen laa tal lenn mooy euh, af Sénégal dafa metti nit ñi sonn nañu nit ñi liggéeyaltuñu man nan la ñuy def ba nga xam ne lii mooy dund gi mu teel a yegg ci askan bi mooy sama objectif mooy sama objectif équipe moom la ma président sant président keroog dafa ni ma dama bëgg quinze jours dans 15 jours mu xam naa ne 15 jours dana jafe parce que c'est dana jafe loolu waaye daañuy fexe ba nga xam ne même bu ñu ko deful 15 jours du ñu sori quinze jours yi donc loolu mooy suñu objectif lu bëri maanaam daf ñuy jéem a détourner te bëgguma mu détourner ñu sur l'essentiel lu gën a yomb mooy jënd ceeb joxe ko. waaye lu gën a jafe des na mooy joxe bi war ko jox un million de ménages ci ay xaw ma 553 communes ci ay plusieurs points de distribution lool mooy jafe loo tax may ñaan askan bi man dama bëgg ñaan askan bi ñu bàyyi yenn wax yi loo xam ni amul bopp amul genn amul njëriñ nañu ñëw ku ci nekk loo mën nga dem bokk sa commune nga jàppale la société civile mën nañoo ñëw jàpp ci mbir mi moo gën wax ji wax c'est pas la peine amul nécessité lu am solo mooy nañuy fexe ba jàppale les communautés de base les comités de base les comités au niveau des communes ñu def les choix nécessaires les choix appropriés jàppale volontairement la distribution mais je pense loolu mu am solo leneen yépp ci jamono jamono ji nekk nga xam ni dañu sonn nañu liggéeyatuñu xëyatuñu mais lii mu am solo mais wax ji bëri ji vraiment jaru ko. Ministre en français, s'il vous plaît. <laughs> non, non, je, je voudrais tout simplement lancer un appel à l'endroit de toutes les couches de la population. Nous sommes dans une situation très difficile, dans une situation très compliquée, où donc les effets de cette pandémie vraiment impactent durablement, en tout cas profondément, donc la vie des populations. Et c'est le moment opportun, donc de la solidarité, de l'union des cœurs autour de cette question. La partie la moins compliquée, c'est l'achat et l'acheminement des denrées. C'est la moins compliquée, c'est la partie la moins compliquée. La plus difficile, c'est euh, la, la distribution les activités liées au ciblage, les activités liées à la distribution. Et en ce sens, moi, je lance un appel à l'ensemble de la société sénégalaise, à la société civile, de consacrer son temps sur l'essentiel. L'essentiel, c'est comment, en tout cas, euh, participer à cet élan de solidarité Comment accompagner les sous-comités de ciblage Comment accompagner les comités de ciblage dans la stabilisation du RNU, dans le choix des ménages du Delta et aussi dans la distribution Et moi, je pense nécessairement qu'il est tout à fait possible pour les uns et pour les autres de venir s'impliquer volontairement effectivement pour atteindre les objectifs, pour atteindre les cibles. C'est cela qui vaille, rien d'autre ne vaille. Franchement, être à cogiter, à parler, à conjecture, ce n'est pas nécessaire. Ce qui est important, vraiment, c'est l'atteinte des outils dans un temps restreint. Monsieur le Président la République m'a fixé un délai très court. Il m'a dit jours. Je sais que c'est un délai très difficile à tenir, mais si tout le monde, en tout cas, nous prête main forte, je pense fondamentalement que nous allons atteindre nos objectifs. C'est cela qui vaille et rien d'autre. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir réew di